هاي ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مرة ولا علق متهرا تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق وردت نار الخليل مكتتما تجول فيها ولست تخترق تنقل من صالب إلى رحيم إذا مدى علم بدا تبق حتى احتوى بيتك المهيمن من قنف عليها تحت أن نتقو وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاد بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل رشاد نخترق اللهم إنا نسألك البجاه ممدوح عندك والماضي أن تعظم أحدنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد آمين آمين يا رب العالمين يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق صناءك بعدما أثنى على أخلاقك خلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما صر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى متى يبدو في الدجيل بهم جبينه يلو مثل مصباحي دج المتوقد فمن كان ومن ذا يكون كأحمد نظاما لحقنا نكال لملحد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم إلى اسم النبي لاسمي إذا قال في القمت المؤذن الأشهد وشق له من اسمه ليجله فضل عرس محمود وهذا محمد تغضي به الناقة الأنماء متجرا بالبر كالبدر جل ليلة الظلم وفي عطافي وأصناع بردتي ما يعلم الله من خير ومن كرم وفي عطافي وأصناع بردتي ما يعلم الله من لين ومن كرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله المسلول وعبيض يستدخل الغمام بوجهه سمال اليتامى حسمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم دار النصارى في نبيهم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 لم يمتحنا بما طيل قلبي حرصا علينا فلم نرتب ولم نيم عي الورى فممهنا فليس يرى للقرب والبعد في غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل ترف من أممي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تصلوا عنه الحلم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 ولسان حجتك وحروس ملكتك وإمام حضرتك وتراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق سريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين أيان خلقك متقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بالدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدنا وأزواجنا وذرياتنا آمين يا رب العالمين لي سادة من عظهم أقداما فوق الجبال إلا ما كن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبيضهم طيب لنا عيس الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سواه تهنئة الربيع بمدحة شفيع بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي يا الربيع مراتي الشفيع منطق البديع أبغي بها مؤملي يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا بإذن ربي العلي عطار ربي إمارات الشفيع منطقة البضيع أبغي بها مؤمن أهلا بشهر المولد شهر العلا والسدد شهر النبي الأحمدي شهر الربي الأولي يعني يا ترى ربيع إماراتي شفيع منطقة البديع أبغي بها محمد شهر الفلاح والسرور شهر به ساد الدهور موسح بين السهور متوج مكلل الربيع إماراتي شفيع منطقة البديع أبغي بها محمد يا ربنا صل على خير الأ الأنام من علا على السماوات العلا بإذن رب العلي عطار ربيع إماراتي شفيع منطقة البضيع أبغي بها أهلا بشهر المولد شهر العلا وسدد شهر النبي أحمد شهر الربيع الأول عطار ربيع مراتي شفيع منطقي البضيع أبغي بها محمد قد قص بالربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع بكل قاد معضل يا الربيع مراتي شفيع منطقي البضيع أبغي بها محمد أهلا بشهر الفرح شهر الذهب بطرح وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل يا طار طربيا شفاعتي شفيع منطق البضيع أبغي بها مؤمن شهر الفلاح والسرور شهر به ساد الدهور موسح بين السهور متوج مكلل جنات الربيع مراتي شفيع منطق البضيع أبغي بها مؤمن أهلا بشار الفاتح إغلاق كون الفاتح الفواتح من قص بالفواتح وحذق من ملل عطر بها مراتي الشفيع منطق البضيع يبغي بها مؤمل أهلا بشار الخاتم شهر النبي القاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول عطر بها مراتي الشفيع وانتقل البضيع أبغي بها مؤمل أهلا بشهر الناصري للحق شهر الآمري بالعرف شهر الظاهر بكل واسف أكمل يا الربيع بمرأتي شفيع منتقل البضيع أبغي بها مؤمل أهلا بشهر الهادي لمنهج الرشاد وقائد قائد وحادي إلى الطريق الأمثل يا رب إمارات شفيع بمنطقة البضيع أبغي بها محمد أهلا بشهر سيدي لأحمر وأسود من حاز سبق سعدني يوم طيار رسلي يا رب إمارات شفيع منطقة البضيع أبغي بها مؤمل وقد كفاها كلها أعباءها وكلها بقوله أنا لها عند الصداد الوجل يا طر مراتي شفاء منطق البضيع أبغي بها مؤمل فيا لها من خطة جوابه في الحطة من ربه سل تعطى واشفع لديه المؤمنين تقبلي بنات بمرات بمراتين من منطقي البضيع أبغي بها مؤمن أهلا بشهر المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين بنات بمرات بمراتين من منطقي البضيع أبغي بها مؤمن وشهر الخير الخلق شهر الجميل خلق شهر العظيم الخلق في المحكم المنزل مراتي الربيع مرعتي شفيع منطقة البضيع أبغي بها مؤمن شهر الذي أصره إله واختاره من حبه خيره عند انقضاء الأجل يا الربيع شفاعتي شفيع بمن تقى البضيع بها مؤمل سهر الذي ما ساقت ومن له الحسنى فقط عليه جبريل الحباد بكل نور مطلي يا الربيع بمراتي شفيع بمن تقى البضيع أبغي بها مؤمل أهلا بليل اثنا عشر فيه ويومه الآخر وطي نعطي بذلك صحا ونور ينقي الجليل يا طرب مراتي شفيع منطقه البديع أبغي بها محمد أهلا بكل ما ظهر من خارخ يعي الفكر فيه كرفعه البصر إلا مقامي العلي يا طرب مراتي شفيع منطقه البديع أبغي بها مؤملة وما رآته من عجب آمنة حين نصب سبابة ثم اقترى بسجدة المبتهل يعني يأتى الرب بمرات شفيع بمنطق البضيع أبغي بها مؤملة كما تدل الزهر كما ترى القصر في وحل الكسر بالثنم المجدل يا ربي بمراتي شفيعي بمنطق البضيع أبقي بها مؤمل وغاضت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد طفئت من خجلي يا ربي بمراتي شفيعي منطق البضيع أبقي بها محمد وجنهم في نكدي لرميها برصدي واضلها مقادي من أجل خير الرسل يا طرب مراتي شفا منطقه البضيع أبغي بها محمد ورنة الشيطان جر عظيم شاني من أوضح البرهان لأذم ما بيبتلي لي الدين شفيعي بمنطق البضيع أبغي بها مؤمل قد من ذو الإفضال بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل طلعت الربيع بمراتي شفيعي منطق البضيع أبغي بها مؤمل أهلا بيوم عيدي ما مثله من عيد العيد قد حل في المولود في محل زحلي يا ربي بمراتي الشفيع بمنطق البضيع أبغي بها مؤملي وسابع الولادة وما أتاه السادة من وفق ما أراد إلا في الأظل يا ربي مراتي شفيعي منطق البضيعي أبغي بها مؤمن أهلا بيوم ثمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي يا ربي إماراتي شفيعي بمنطق البضيعي أبغي بها مؤمن بالحمد الأولين له والآخرين أمرنا فكان ذا يقينا من الكريم المفضل رجعت ربي بمراتي شفيع بمنطق البطيع أبغي بها مؤمل أهلا بيوم اثنين مولد سان اثنين مبعث سر الكون مقدمه المبجل رجعت ربي بمراتي شفيع منطقة البضيع أبغي بها مؤمل أهلا بشهر العجم إبريل شهر الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير مرسلين يا ربي مراتي شفيعي منطقة البضيع أبغي بها مؤمل أكرم بيوم صار عصرين واستنار لمن حوى الفخار طارا وغفرة من منظلي يا ربي مراتي الشفيع منطقة البضيع أبغي بها مؤملي أكرم بشهر نيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكمل يا ربي مراتي الشفيع منطقة البضيع أبغي بها مؤملي قد تمت الليالي في عدة الليالي بذنة المعالي كالجوهر المفصل نعات الربيع بمرات شفيع بمنطقي البضيع أبغي بها مؤملي تهنئة الربيع بمدحة شفيع بالمنطق البضيع أبغي بها مؤملي يا ربي بمراتين شفيع منطق البضيع أبغي بها مؤملي أبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي يا ربي مراتي شفيع منطق البضيع أبغي بها محمد والختم لي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى المقار الأسنى مع الرفيق الأفضل يا ربي مرات شفيع منطق البديع أبغي بها محمد وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نغتشي الغويا بجاي عبدك العلي يا ربي بمراتي شفيع منطق البديع أبغي بها مؤمن صلى وسلم الى عليه أفضل الصلاة ما دام كونه نيلا من أبد لأزل يا ربي بمراتي شفيع منطق البديع أبغي بها مؤمن وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل يا يا مراتي الشفيع منطقة البديع أبغي بها مؤمل بجاههم يا إلهي اغفر لناظمها واسمح لقارئها وللذي حضر وعمه بقفي اللطف وكفيهم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 ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Euh, mbokki jullit yi ñu ngi leen nuyu beneen yoon gannaaw ci ndigalal imaam moo am ay abyaat yu ñu santoon ñu sarxa ko mu aju ci abyaat yi nga xamante ne Cheikh Ibrahima radiallahu anhu indaale na ko ci téere mawlud bi euh, démb jëloon nañ ay baytu yoo xamante ni aji woon ci usaasa ngi taxawe woon si inna rasula la seyhun yustadaau bihi ñu jëloon munazzahun an sharikin fi mahasinihi ba fi mu war a yem tey nag ñu ngi ñëw ci bayt yi nga xamante ni al imaamul busari moo ko wax malaana cheikh indi ko ci teer mawlud bi nee na law naasabat qadruhu آياته عزما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم من ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم لو ناسبت سدبو ونك آياته mooy kawtéef yi nga xamante ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam andi woon na ko bu fekkoon kawtéef yi dañoo dikk dëppoog قدره موي ليغا خاونتاني موي مقامم بو فيكون معجزات ميراكل يم اندي دا فا دبوك معجزات عزمان تي اك ماغ كون بوبا احيا دنا نا دوندال اسمه تورم حين يدعى وقت ووقف كو داري سر ريمامي تي اجي فنخ جي اي يخ لوم واخ لوم بغا واخ دا فا نا خني يونس الله عليه وسلم مقامم مو غنا ماغ كاوتيف يم اندي yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi na kawteef yu bëri yu ngeen xam mooy waxloo mbëtt maag garab ga doxoon fekk si ko ak mbooleem kawteef yi nga xamante ne indi na ko mooy xar jant beeg weer beeg yooyu yëpp ci ay kawteefam la yooyu yëpp ay mbir yu màgg la ndax soo tuddee kawteef di nga tudd yonent yàlla Isaa yonent yàlla Isaa comme neen ko xamee bokkoon na ci ay kawteefam daana dekkil ku dee te dañ la waxoon na la bépp kawteef bu yonent mës indi yonent yi weesu kawteef fi mu indi yëpp yonent yàlla Muhammad indi na ko ba indi lu ñu indiwul su fekkee dekkil gi yonent yàlla Isa daan def Isa daan fekk ku dee mu dekkil ko loolu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def na ko ay yoon bokk na ci bu ñuy wax mooy bi nga xamante ne Xasan moo ko nettali mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dafa am benn waaye bu ñëw ci moom mu ne ko sama doom dafa génn àdduna ñi ngi ko sànni ci xurba yonent na ko xam ah, mu ne waaw mu ne ko nañ dem ma xool ko ba yonent bi ñëwee ba ca xur bi woo xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi dekki ñëw wuy su ko yonent na ko ndax da bëgg ma delloo si waat la àdduna nga dund ak sa ñaari waajur ndaxte ñoom tuub tuub nañ ba dugg ci diine ji euh, xale bu jigéen na ko déedéet man bi ma génnee àdduna fekk naa yàlla jox may teraanga yoo xamante ni amatuma benn intérêt delluwaat ci àdduna kon benn dekkal benn dekkale ngóob bokk na ci beneen dekkil bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dekkil doomu aadama mooy bi nga xamante ne Anas moo ko wax mu dafa am beneen ndaw loo xamante ne dafa bokkoon ci ansaar yi waajuram dafa gumboon dafa génnoon àdduna dégg nga waa ji daal di génn àdduna nag moom génn àdduna yaayam gumbaloo woon yonent sallallahu alayhi wa Anas ñu dem jaare ji ko bi ñu demee ndaw si ne leen ah ne yonent man kii rek laa fi dese woon moom laa daan wettali ko te dama laxasaayu gàddaayu bàyyi ñëpp ñëw topp leen te kii mooy samay bët yonent ne ko anamu ndaw si wan ko ko yonent ya sallallahu alayhi wasallam muy ko am teg loxoom ci boppam néew ba jug anas nee na keroog dafa dekki ànd ak ñun reer kon nga xamante yéen sa alayhi wasallam lépp loo xamante ni ab yonent def na ko ci kawtéef yonent def na ko ba def lu raw loolu xam naa ba ñu guddal mooy tax wante yu bëri mën nañu ko ci indi léegi nag bu sori mu ne kéemtaan yooyu nga xamante ni yonent yàlla Isa moom la indi woon ba wan ko ay nitam ñooñu kéemtaan yi daf leen a ëpp doole ba ñoom ñu jàpp ne kon ndeke Isa mii mooy yàlla ndax xam nga dekkil nit moom dekkil nit lii aada mooy yàlla moo ko daan def su ko nit defee rek kon dañuy jàpp ne kii dañ koy jiin yàlla ñoom fa lañ toll woon mais bu sori mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lam yamtaxin naa mooy nattoowuñu bi maa ci loo xamante ne taayaa dana lottu al uqulu kali bihi ci loolu ngir tax li tax mu def ko xirsan ngir xër gim xër ale naa ci ñun xam lu mu bëgg a wax dafa wax ne yonent bi dafa ñoo xam xam fuñ toll moo tax kawteef yim indi yëpp dafa nekk yoo xamante ne dafa tolloog suñu xel dafa tolloog suñu xel lu mu indi suñu xol xel dañ koy dékku mais la yonte yàlla Isa indi woon ci ay nitam dafa dépassé seen xel ban jàpp ne kon kii ab yàlla la mais yonte bi sallallahu alayhi lim ñu indil yëpp xër ci ñun bëgg ci ñun lu baax moo tax mboolem kawteef gi mu indi nekk loo xam te ne day dëppoog suñu xel ba tax na duñ ko jox place yàlla looloo tax bu sori ne ñun gannaaw ba nii la yonut def ak ñun kawteef yi tolloog suñu xel kon ñun falam nartab si kuñ mukk ne moom ab yonute yàlla la ولم نهمي تنين غلمون بديكو جيني الله تيمت بتاي بتاي يونت دي واخ البصري مي واخ سي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم معناهم دغ دغ معناهم دغ دغ ديلا خمال ني دوما ادم منول ايغ سي خامكو يونت دغ دغ منول نيك موتا مون اعيا لوتلون الورا مندي في لان مولن لوتلو فهم معناه موي خام دغ دغ يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم مندي munul xam deug deug yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam tan te mune falaysa yura deful gis lil qurbi ñeel aji jégué wal bu'di ak aji sori fi ci yonenté bi ghayru mun fahimi lu moy moy aji wadam moy ko xamanteni munu la wax ci yonenté yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam lo dégg ki jégué ba mel abou bakkar ak ñom seydna ali munu la wax deug deug kan mo yonenté yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ñu sori ba mel ni ñun nak mënuñ la ko wax tamit ba tey ndax huwal kullu minhu al kullu batnan wa zahiran comme li bay wax yunus sallallahu alayhi wasallam moy lépp te lépp no meuna gis jóge gonu ci mom yunus yàlla mom sallallahu alayhi wasallam mo xam ci batin wala zahir fa bahrun siwahu ma lana fihi mashrabun bayna na ne bépp géej gu godi géej yunus yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam amu ci ben nan way ta batay mune fa min nuurihil kawnaani bàyyi mu ne àdduna ak alaaxira tukkeenu ko na ci leer yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam minhu tafajjarat ulumul eh, rusli wal kullu yashrabu te ci leer yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam-xamu mbooleem yonantu ci moom la moom moo koy tëbb kon kooku mënoo xam maanaam kii mooy kan dëgg-dëgg mënoo xam loolu ci yontu yàlla sallallahu alayhi wa sallam lu mooy da ngaa xam ci moom tuuti rek la ca des nga bàyyi ko bu melal yonante bi mu ne yonent bi dafa mel ka shamsi dafa mel ni jant tazharu mooy dana feeñ moom jant lil aynayni ñeel ñaari bët min buudin ci aji sori nu mu mel ci moom saxiratan mu nekk lu tuuti nee na yonent dafa mel ni jant day misaal mu ne dafa mel ni jant donte bàyyi waxoon na ne yonentu raw jant waxoon na ni shamsul maali bala shams mughribatun wa taaha laysa lahu gharmun fala tahimi mu ne yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mooy jant ak kawe mun a bàyyi loolu sax ndax jant day soo te yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duut kuy soo kon ëpp na jant waaye ci misaal mu nit mën a dégg ak xelam moo tax ñu indil la jant ndax kawe gim mu kawe bu sori ne yontu dafa mel ni jant nga xamante ne ki sori jant bu ko séenee day jàpp ne jant moom noonu rek la toll foofu la ma maqaamam yam day naan jant bi ah ndeke nii la toll mais ki nga xamante ni nag moom. dafa ñëw ba sës jant bi jege ko dootul gisat sax jant ndax leer gi koy ñoddi xam nga moo taxoon borom xam si waxoon mu ne wamin shiddati zuhuri xafaawu bokk na ci tarak feeñ dëgg nëbb lu feeñ dëgg da lay fàdd doo gisati euh, mu ne ba tey watu killu mooy dana dana lot loo ak tarfa gis min amam ci aji jege ni nga xamante ne ki sori jant day ndaw ci moom waaye ki dem ba jege jant nag moom day dem ba du ko gisati ndax jéego gu ëpp moo tax mu ñëw ba tey di wax ne yonent sallallahu alayhi wa naka la nit di xamee dëgg-dëggam fii ci àdduna te doomu aadama yi nga xam ñi ngi nelaw dëgg-dëgg mënuñ yeewuñ ci seen i nelaw ni ñu xamee yonent yàlla Muhammad mu ne wa kayfa yudriku naka lay jotee naka lay xamee fi dunya ci àdduna xaqiqatuhu mooy xaqatu muhammadiya dëgg-dëgg loolu naka la ko nit di xamee fii ci àdduna xawmun ay nit yoo xamante ne niyaamun way nelaw lañ nit yoo xamante ne ña ngay nelaw te sallaw ba miis na anhu walis ko bil xulumi ci ay gént nit ñoo xamante ne ñu ngi ci àdduna di nelaw bay gént ñooñu naka la ñu xamee xaqatul muhammadiya ndax uwaysul xarani dafa daje woon ak sina ali ak Ousmane sina ali ak Omar moo leen yéen de yéen dund ngeen ak bi mais ki ngeen dund ak du yonent bi yéen keppaaru yonent bi keppaaram la ngeen du dund dëgg-dëgg yontu sallallahu alayhi wa sallam dund woon moom xamoo leen ko kon euh, yontu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu kenn mënu ko xam yontu sallallahu alayhi wa kenn mënu xam léppam waaw mais ñu ngi ñaan yàlla yàlla mi nga xamante ni mooy euh, borom moo xamante ne mooy jox ñëpp xam-xam mooy ki nga xamante ni ku xam moo la xamal yàlla yàlla xamal ñu dëgg xaqatu muhammadiya yàlla yàlla xamal ñu dëgg-dëgg xaqati muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam ci barke weer wu tedd wi nga xamante ni moom lañ nekk barkeeb Cheikhul Nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla tëbbuñu ñun ñëpp ci xaalan wa maqaaman yàlla yàlla tëbbuñu ci ñëpp eh, gàmm gi ñu dem yàlla yàlla nangul ñu lu fa waaye ñaan yàlla yàlla nang ko ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii mooy li nga xamante ni eh, moom la ñu Oustaz santoon moom la ñu Oustaz kon daf waxoon nañu jëlal ko ñeenti bayti moom lañ jël ci barkeloo ko ci xasida yi nga xamante ni moom la imaam Buusiri indi woon imaam li nga santaan woon mi ngi noonu lépp loo xamante ni jub na rek ci yàlla la lépp loo xamante ne dafa jàdd ngeen xamoon ne mate deeg aji wax ji la ak ñàkk fasaa waaye euh, ni ko imaam bëggee woon dëgg-dëgg mënuñu ko indee noonu ndax ñun fasaa wuñ moo tax kon oustaz mi ngi noonu loolu la amoon kàddu yu ñu ciy rotal waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa xam naa dañ ci dégg ay kàddu rek wax dëgg yàlla di sant yàlla bu baax ci fiir bu leer nañ yëpp nag tënku ci ay xam-xam andi ay shawahid yoo xam ne yi mu jëlee ko ci alquran yi mu jëlee ko ci hadis yi mu jëlee ko ci waxi baay di ñaan yàlla yàlla yàlla dafa dégg ak topp rek eh, di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam te yokk xam-xamam bu baax a baax ndaw la day jàng nañ ko ñaanal yàlla te sag ci pays bi di dañ koy bëgg lool kon ñu ngi ñaan yàlla képp kuy ndaw rek tey jàng diine lu baax ne ëllëg sa sa jotaay la mbir mi buñ ko tënk fenn nañ jàpp ne xam-xam kenn moomu yent muhammad la wax ne laysat arabia umman li ahad wala aban innama hiya lisaan man takallam biha fa wa arabi arab ci lañ wàccee diin neena na du ndeyu ken du baye ken kon nak dëkku ci ben famille kon nag kep ko xamne yang ci gor gor rek ci ñu ko bok kon nag ma ngi ñaax sama bop di leen di ñaax di wax ne ñun ñoy ëlëk kon nañ gor lu baax bu keen wax ne la bok fi la bok euh mbir mi dafa wara a nekk li alcorane wax mu ne elante kon am ño xamne mbolo mo xamne xam volonté wu dem jang diine bu ñewé mëna alerte seen mbokk waye ñëpp buñ fexé rek jëm ci benn côté rek du baax yonente yàlla yaquba alayhi salam ba muy yebal ay doom la leen wax ya bunayya laa tadkhulu min babin wahid wa wadxulu min abwab mutafarriqa yéen samay doom du ngeen démé bu leen dugg ci benn buntu moy nit boo amé sa njabot bu jël ñëpp rek duggal leen ci benn côté mais tassara leen ëllëg sa kër sax dana am ku leen mëna dimbale ci walu diine dana am ku leen mëna dimbale ci walu aduna kër nu la wara doxé waaye buñ jël ñëpp dugal ci école bi buñ ñëpp buñ jël ñëpp dugal ci daara ji waaye nañ ko boole su ko defee ñii buñ xamee dimbali ñii ñii buñ xamee dimbali nii adduna bi dimbalante rek la amul kenn ko am lu doy wala si wala sa morom ingénieur bi kiy jàng médecin lum ay ay ay bu bëggee tabax entrepreneur lay jëli entrepreneur lu mu ay ay su bëggee faju médecin lay jëli médecin bi nag su bëggee xam diinam kan lay jëli ustaas bi lay jëli kon mbir mi nii rek la kon ñu ngi ñaan yàlla li fi jóg di xam-xam di leer yàlla ñu ko yàlla defal ñu bokk ñun ñëpp yàlla nañu yàlla yokk suñu gëm yàlla yokk suñu bëgg ci yonent yàlla Muhammad ak mboolem yonente yi ak mboolem waliyu yàlla yàlla na ko yàlla ko yàlla def asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.